ak waxdu boobu moo waxoon mooy li ko yàlla diggoon te mu ne ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal waxdu li fii ramadana najaza li ma digoon defal na ma ko ci biir weeru koor am na feneen fu waxit ne lu ma neex rek àgg ci lu ma neex rek maanaam li ma neex lépp ma amee ko ni ma ko bëggee loolu ci ramadan lañ ma ko defale moo ni wax ne maddaliya alladi xaba bi fayadan ma shitu minhu inda shahri ramadan nekk noonu itam wax na ne yéeg gi ma yàlla yéege ba ma àgg ci mboolem maanaam li li fu waay fi ma bëggoon a àgg fépp ci suñu borom tabaaraka wa taala fawqal muraad loolu yàlla moo koy defal ci biir weeru koor itam maanaam wax ne raqaa ila fawqil muraadi kulli fi ramadaana muktiran li kulli ba ci kun wax na ne yàlla jox na ko kun loolu it mustalax la boo xam ne suufiyanke yi dañ koy jëfandikoo mooy yàlla jox la kun dinay wax ne lu am firnde la ci alxuraan suñu borom gis nga ba mu waxee alladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquuna dajaa teg lan lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim lahum maa yashaa'uuna inda mooy kun laka maa tashaa'u indi loolu mooy kun rek mooy lu la neex mu fekk la ci lahum maa yashaa'uuna inda rabbihim dalika jazaa'ul muhsinin liyukafira allahu anhumu aswa alladi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladi kaanu yaamaluun maanaam loolu mooy mooy kun kun googu nag sëñ bi wax na ne yàlla ci biir weeru koor la ko joxe te mooy li mu wax ne fajaani fi ramadan al azami bi kun wa bismihi al azim al azami ismullahi al azam ak kun maqaama maqaama la moo xam ne daraja nit yàlla dañ fay àgg nga xam ne dañuy àgg ci luñ bëgg yàlla fekk leen ci loolu sëñ bi wax na ne ci biir weeru koor la ko amee kon yooyu ci gàttal rek moom laa doon lim ci yi nga xam ne da ko amee ci weeru koor nga xam ne day gën a firndeel li dox digganteem ak weeru koor am na yoo xam ne sax sëñ bi daa wax ne man weeru koor moo ma ko jox yooyu it mën naa ci wax lu mel ne li mu wax ne yaquudu lii chahru siyaam mux ji la saayin wa qiyaam wa fawqa ajri di qiyaam inda qadimin quddima weeru koor jox na ma lu gàcceel masalan ñi nga xam ne dañuy farlu ubbaad yi nga xam ne ñuy farlu ci jaamu yàlla di ko sellal di taxaw guddi yi yool yañ cay jëlee yool bu ko gàcceel wala lu ko raw weeru koor jox na ma ko am na feneen fu mu wax ne wajjahali shahru siyaamil barakaat fi sakanaati abadan wal xarakaat mboolem barke yépp weeru koor jox na ma ko ci sama yëngutoog sama dal sama dem am na fenn fu mu wax ne yaquudu li chahru rabiil awali wa ramadana mufhiman kulla wali amee naa ci weeru koor loo xam ni day wedam loo bépp wëliyu maanaam bépp wëliyu ci misaal rek bu dee day wax ay darajaam ak i xarbaaxam ak i mbiram loolee su ko gisee ci man di daan noppi xam ni moom amagul agugul fi mu agsi te loolu nee na ci ramadaan laa ko amee loolu yi wax na ne jase ba chehru lii karam baaqin qadimin fa ana in saram teraange suñu borom yi ak mbaaxam loolu lépp ci ramadan wax na la ci la ko amee kon loolu mooy diggante sëriñ bi ak ak weeru koor sëñ bi nag nan la daa dunde weeru koor foofu lañuy jeexale bu soobee yàlla sëñ Tuubaa cheikh Mouhamad Basir wax ne weeru koor chehru kaana chehra iidin lahu mooy ayit la woon ci moom ayit la woon ci moom nun ni ñu yàkkamtee bisub tabaski di ko yàkkamtee bisub korite ak bis yi nga xam ne ay bisi feet la noonu la sëriñ bi yàkkamtee woon ramadaan noonu la ramadaan meloon ci moom feet la woon ci moom ayit la woon ci moom wuuteeg loolu nun ñi nga xam ne dañuy dàq koor gi moom maanaam bu koor ñëwee sa yitte mooy dàq ko rey temps bi rey temps bi ba mu dee nga xam ne moom bu doon fukki waxtu day mujj benn waxtu lay doon wala ñaar siñ moom koor moo doon weeram wi gën a neex ci moom moo ko gënoon a moom la gënoon a bëgg ci weer yëpp sëñ si daa wax ne bu bu bu jotee ci la ko daa tàmbalee waajal bu weeru saxbaan teroo rek ci la koy tàmbalee waajal nan la koy waajale mooy jataay yim daa def jataay waare yi day tàmbali di waar nit ñi di leen jàjji di leen moytuloo am po di leen wax ngeen waajal ndax weer waa ngi jub si nee na daawut toog benn jataay ci saabaan xam nga sëñ bu ma saa julli si jàkka ji faaw léeg dana fa toog waxtaan ak nit ñi doog a duggaat ci biir jataay yooyu nag bu ko ma saa def faw mu wax bu dee weeru koor faw mu wax leen ne na waajal weer wi te moytu nag iblis seytaane sëñ Basiru indi na ca benn jataay boo xam dafa wax ne sëñ bi da da caa digle ne duumu ala tafaqudi qulubikum wa xabsi jawaarixikum fa in al aduwa qad alima biqtiba biqtiraabi xabsihi li annahu yuxbasu ida daxala alchahru fa huwa yaxrisu kulla alxirsi ala an yufsida alaykum diinakum wa an yabdura fi qulubikum buduurahu li tanmuwa fiiha fala tatamakkanu min maxwiha wa istisaaliha li tasfuwa al afidatu wa tasluxa li waaridaati almawaahibi ba mu àgg mooy dafa wax ne na ngeen di nemmi ko seeni xol te seen cër yi ngeen téye leen te xam ne noonu yàlla bi waxtu wi ñu ko war a jëng dafa jege si te mooy weeru koor te bu weeru koor jotee dañ koy jéng ba tax na yitteem mooy yàqal leen seen diine fi ne balaa weer wee jot day fexe ba ji ji ji ji ci seeni xol ji ci loo ay ak yàq goo xam ni bu ngeen duggee ci biir weer wi mu mën a yàq moom nga xam ne biir weeru koor du fa du leen mën a yàqal xam nga waaye balaa weeru koor wi lay fexe ba am lu mu def ci seen xol am nji mu ci ji moo xam ni dangeen koy duggee ci weeru koor wi bu ngeen duggee mu leen di yàqal ba keroog weer way jeex mu doog a dellusiwaat moo tax sëñ bi da wax ne na ngeen moytu kon iblis moomu ak seytaane ak i pexem bu ngeen ko defee seen xol mooy tax mu sell mooy tax ma waa mawaahib mooy yii rote fu suñu boroom ci ay maye ki yëf di man di rot ci seeni xol ndax kat bunti asamaan yépp day ubbiku ci diirub weeru koor ñaan yi di dem lu waay ñaan rek yàlla may la ko kon na waajal weer woow na ngeen moytu bu baaxeet it iblis da ko daa noonu noonu la loolu la mu jële wax ji itam ndax moom yitteem mooy xool fu ngeen sàggane rek mu gaaw am lu mu def ci seen xol loo xam ne diiru weer wi da leen di yàqal Cheikh Mouhamed Basir nee na jataay boobu loolu la ci wax te di leen waajalal weeru koor nekk noonu sëñ Basir day wax ne bu weeru koor di jub si itam ñi nga xam ne ñooy dongay tërbiyaam ak taalibe yi daleen di tàmm di leen dénk jàng alxuraan leen lu ne mu wutal ko ñu ci ñoo xam ni moom mooy moom la def mooy ñoo xam ni jàng la ñuy def ak ñoo xam ne xidma rek la ñuy def mooy defari ndogu ak i bernde ngir ñi woor ak ñi nga xam ne nag jàng ak jàngale la def xam-xam weeru koor dawu ci nangu kenn ku toog te defoo dara moom sëriñ bi bu weeru koor masaa ñëw itam waxuma la moom ni mu koy dundee waaye suñ Basiru dañoo misaal ni mu ko daa dunde ak ñi ci des mooy kenn ku ne lay sa yitte dana fexe ba jàppale la ci weeru koor li gënoon a fës ci sëriñ bi ci weeru koor mooy dimbale ak joxe ak jàng alxuraan ak di wax leeral ma alxuraan mooy jataay xam-xam yi sëñ Basiru wax ne bu dee àmma bi mooy sama classe gi noonu ñi ci mbedd mi nga xam ne xëy na mbiri xam-xam yu bari yi teelunu nee na ñooñu moom yut'imuhum bi ghuraril jifaani maanaam ñooñu ay ay ay xéewal lañ leen daa waajalal diggante cere noonu la ko limee cere ak ceebak ak ak tàndarma ak suukar yooyu yépp dañ ci waajal lu bari ba biir koor gi ñi nga xam ne loolu mooy seen yitte ñu mën caa ñu mën caa jot bis bu ne itam nee li ñuy def ci ay xeeti bernde yi naan kenn du xam nu mu toll ci nii itam ci nii yiñ daa taal itam nee waxtu wu ne du fay ñuy togg rek ak a toggaat di def ay bernde alxaasa nag mooy ñi nga xam ne xey na xeeti bernde yi du moo leen di teral ñooñu sëñ Basiir dara wax ne da leen daa seetli ñaar mooy gan ñi ñoom it dañ leen wutal seeni dal ak seen xeeti bernde bopp kenn ku ne lañ lay defal ci ay xéewal du bokk ak sa morom sëñ bi nag lam leen ca daa mooy léeg-léeg mu woo leen ci biir weeru koor wi jataay ak ñoom loolu mooy benn bi nga xam ne mooy dàq fi ñoom mbooleem xeeti xéewal yi nga xam ne moom la defar ci kaw suuf ñi nga xam ne dañoo lot di ay màggat yu mënta ñëw fi moom it ñooñee dañ leen daay yónnee ay xéewal fañ ne di leen nemmiku moom da daay yónnee di leen nemmiku ak di leen defali bernde fañ ne ñi nga xam ne ñoo jiite yenn kuréel yi ci biir murid yi ak lu dul murid yi ñoo ñëpp sëñ bi di leen daan nemmiku lu ci biir weeru koor ak di leen jokk di bégal xale yi di jegeel ñi nga xam ne ñoo sore woon sëriñ yi murid yi itam muy jonjonte ak ñoom ak di leen teral ak di leen di gën a yëkkati seen yitte nike noonu rekk noonu la daa doxe ci biir weeru koor ba weer wi jeex ku fonkoon la itam naafile koor gi naafile gi da ko daa waajal da daa waajal kiy jiite eh, tawa taraawix yi xool ndax mokkal na alxuraan ndax axkaami tajwid xereñe na ko yooyu yëpp da ko ci daa xool bu ko defee bu ñu demee ba tànn koo itam moo ko daa gàddul mboolem ab dundam suñu bésir nee naa bi set daana ko am lu mu ko jox loo xam ne mën na koo yor moom at mi yëpp te li mu koy jox tey du bokkoo la mu koy jox ëllëg buñ seetee ca njaareem ku ñu wax Cheikh Abdullah nu ay i mel na ne moo ko doon jiiteel ba mu fa jógee ba mu nelawee lañ jël koo xam ne mbokk la ci moom di doomi baayam bu ndaw ku ñu wax as sajjaat nga xam ne moo jiite ba ni sëñ bi eh, gin ginnaaw sëñ bi mm, moo diirub li des ci dund sëñ bi ba ni sëñ bi sëñ bi jógee bu ko defee foofu dañuy dugge ci koor gi mujj gi mu koore ca Mayomba nga xam ne moom sëñ Basiru da koo nettali muy koor gu doy waar nga xam da ngay gis ne sëñ bi lee ma njëkk a wax mooy bi mu nekkee ci xéewal ni mu wooree waaye ba mu nekkee jafe-jafe ak tumuranke itam soppi ko wenn woorin wi la koor gam koore ca maa yomba sëñ bi ci boppam dafa wax ne moom weer yi ci boppam sax ndax foofu ay yéefar ay yéefar fa nekkoon xamuñu woon jul lislaam sëñ bee fa dugal lislaam muy Gabon foofe weer yi ci boppam sëñ bi dalaa def weer yi neen da ko daa tënkal boppam di xàmmee bisi di ko wàññi moo tax man a xam ne weeru koor jot na waaye bu doon loolu du xam sax na weeru koor jot na wala déet sëñ bi su dafa xam ne koor ga la ca metti gën a metti mooy kaana fiha sifral yadayni fi ashaddi gurbatin wa faqrin mudqa mooy koor ga diirub weer wa dara yoru ko ci amul yorut dara luñ mën a jëfandikoo du luñ mën a lekk du luñ mën a naan nekk ci tumuranke ak ñàkk gu metti ku ne xam ne nun ñii bu weeru koor ñëwee li ngay jëfandikoo sa rek danga ko yokk waroon def benn dafa aw nga tegaat ci beneen muy ñaar waaye weeru koor ñëw fekkul ak dara ndax moom tubaab yi dañ ko jàppoon am na lu ñu war loon di ko jox waaye loolu nangu ko woon a jël moo tax sëñ Basiir wax ne lam yamlik naqiran wala qitmiran dara dara dara dara dara moomu ko woon ca ca weer woowee te itam leneen it mooy lam yakun hunaka anisun wala man yushfiqu alayhi mooy amutoon kenn ku ko wétali itam daa tumranke woon mooy wéetoon moom kese kenn wétaliwu ko foofa amuloon kenn ku ko fay ñeewant ndax ay tubaab ak i noonam rek la nekkaloon waaye ba weer wa ñëwee sëñ bi da ko nuyoo ak xasida da ko nuyoo ak xasida xasida gam ko nuyoo mooy li wax ne allahumma inna xabibi wa xalili chahra ramadan qad istahalla alaya yowma alitnaini aama xamsata achara wa salaasa miatin wa alfin wa raxabtu alqasida fa taqabalha wa barik li fiha wajcalha fawqa danni fi ddaareni mooy sunu borom sama xarit bi sama soppe bi weeru koor tàmbali na tey bisub altine maa ngi koy tatagal di ko nuyu di ko nuyoo na xasida gi di ñaan nga nongul ma ko xasida gi moo tàmbalee ci li mu wax ne yaa xayra dayfin maanaam weeru koor wi ak fam ko fekk gis nga moom moom mbégte la ci gis gis nga ci biir xasida ga sax la wax ne lan fajatani yaa xalili bi sururi huna inda al ida li mbir mi metti metti bi weeru koor ñëwee dafa ci mbég moo xam ni tax na mu fàtte mboole mettit yi moo tax bi weeru koor bi ñëwee mu tàmbale mu mu gàttandoo ko xasida gi yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zirta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qira taaati wa sadadi muaddaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqaa wal ilmi war rachadi mooy mi ngi nuyu gan gii di weeru koor tudde ko xayru dayfin mooy gan gi gën ci gan ñi te bi muy ñëw mu indaale mbégte mu rëy mu di ko tatagal di ko dalal tey waxit laa zilta dayfan kariman zairan abadan yàlla boo gëj di fi ñëw ak ñëwaat xam nga googu gan neex na ko mukarraman bi xiira taaati wa sadadi mooy fas na ko yéenee bernde la itam waaye bernde yi mooy lan mooy taaat wa sadad mooy jaamu yàlla yu fees dell ci ci ci ci weer wi danañ wax na sëñ bi guddi yi ak bëccëg yi da ko daa duy comme ni ñu sole camion ba mu fees del noon la daa suule duyee guddi gi ak bëccëg yi ci ay jaamu yàlla ba du am waxtu woo xam ni amul lu muy def waxtu wu ne rek mi ngi ci jaamu yàlla gu rëy woo xam ni dana jur lu rëy ni ko noonu la woore weer wépp waaye Cheikh Mouhamed Bachir nee na daana woor ba ngoon du am lenn lum doge mu jël ci xobi garab yi fexe ba nal ko ba xam ne dog na koram maanaam wisaal la def ci diirub weer wa yépp loolu yi day wane ne nam nekke woon bi mu nekk maanaam bi mu nekk njaareem ci mujj gi noonu yi ba nekkee ca tukki ba itam ca tumuranke ga noonu benn melo wi la ba weer wi demit gis ngeen da ko tàggoo ak geneen xasida wax ne allahuma inna xabibi wa xalili wa tabibi chahra ramadan arada insiraaf anni yowma thulathaai ilayka maa anni lam amalla minhu wa lam astagni anhu mooy weer yu bëgg naa dem te man euh, doyaluma ci moom yokkatuma ci moom itam mu tàggoo ko geneen xasida wax ne mooy gi mu defee yaadal bushaaraati bil ayaati wa suwari lishhad bi kawni ya abdal muhsini suwari lishhad bi kawni bi kawni ya abdallahi fiika bila gishin wa lishhad bi anni tubtu min xawari ba xasida ga jeex ba muy julli gis ngeen xam nga wax na ci tarjumaan wax ne wala boog ci geneen xasida maanaam bi su korite ba ba mu wax na ca ne dafa def li war a def lépp sangu dog kooram ñëw ci bërëb bi nga xam ne mën na faa julli ba muy julli xam nga am na ay ñaari xale yu jigéen yu ko romb di ko di ko di ko xaqtaay ka reetaan ngir xamuñu la mu doon def waaye sëñ bi ba mu noppee gis nga munaaja ba mu ca def dafa wax ne suñu borom ne ko man kat li nga digle lépp def naa ko woor naa bi wari jotee wor naa sangu naa itam ñëw di julli julli ka it li nga digle nag ci mbuurum koor moom loolu dama ko amut moo tax génnewuma ko su ma ko amoon it gisuma kuñ ko mën a jox ndax ñi ma fi nekkal ñëpp mëne su leen jox muuram koor di ñaan suñu borom mu julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wéyal ay ay munaajaatam yàlla na yàlla fayal ko kooku mooy Cheikh Bamba loolu mooy digganteem itam ak weeru koor nu nit liñ ci war a jànge rek mooy xam ne sëriñ bi ginnaaw fii la fonkoon nii la fonke woon weeru koor nu farlu noonu it ci fonk weer wi ndax bëgg sëñ Tuubaa li ko war a firndeel mooy jéem a seet bëgg sëriñ bi nga nekk ci loolu mooy firndeel sag bëgg sëriñ Tuubaa te itam sëriñ Tuubaa lii mu nekkoon rek ci la yaroon mboolem mag ñi nga xam ne ñoom la àndaloon mag ñooñu itam ci lañ daa yare bu ko dee ñun ñi nga xam ne dañoo ñëw seen ginnaaw nag dañoo war a xeeñtu doxin ak taxawaay ak yooy jëf yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi doon jëfe te daa ko digal itam mag ñam àndaloon ñu di ca roy suñ kem kàttan bu nu mënta jotit nu mën lu bon bon rek nu nu am dara ñooñe ñooy gaaña humur rijaalu wa ghablun an yuqaala liman lam yattasif lam yattasif bi maani wasfihim rajulu yan yàlla def nu bokk ci gaañooñe te defal nu tawfeex yi man a roy ca ñoom dëgg-dëgg roy ci darajey Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu darajey borom dëkk bi boroom bërëb bi ma sàmm Mbacké yan yàlla fayal nu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jëf euh, Serigne Ahmadou <coughs> ci waxtaanu tomb bi nga doon waxtaane muy tomb mu am solo. tomb bu matale teit gëstu bi nga jox ko xaqam ndax li gën a neex ci gëstu xam-xam muy albaxsul ilmi dañ soxla ko mooy lenn lépp lépp looy wax mu am cëslaay am delluwaay ndax xam-xam bokk na ci li koy dooleel mooy cëslaay te seetlu nañ sa biir waxtaan lépp loo xam ne wax nga ko am nga foo ko sukkandiku loolu dafay firndee na rek ne waxtaan yi ci suñu jamono ji bari na waaye léeg-léeg nga seetlu ne am na ñoo xam ne dañuy fàtte cëslaay yi te su fekkee da ngay wax ci xam-xam dana baax lool ñu gën a fonkaat cëslaay di ci dellu ndax sëriñ bi lépp lu mu bind lépp lu mu wax daf ko bind boo gisee saa su nekk dafay wax xultu su ne xultu kenn mënu faa dugal ay waxam ndax loolu waxi boppam la kon nag cëslaay yooyu jot na ñuy def gëstu moo xam ci lu mën a doon ñuy dellu ci source ci dellu ci cëslaay yi ndax wax ji mën a wér ndax xisas yi mooy xikaayaat yi nettali naam am na ci yoo xam ne wér na waaye nag am na ci yoo xam ne faw ñu wóorlu ko wóorlu gi mooy dellu ci ñi nga xam ne ay cosaan lañ ñu man koo leeral kon am nañ bégte bu baax ci ci jataay bi amaat nañ bégte boo ci joxin wi ndax xam-xam dafa mën nga am xam-xam waaye ci joxin wi tam beneen fànn la moom lañuy tuddee fànnul ilqa mooy nooy joxe xam-xam bi am ngaw ñam nan ngay présenté ñam yi nan nga koy joxe ndax nit ñi sopp ko wàllu googu tim fa tabaarakallaahu eh, mat na sëkk yal yàlla sàmm la yal na boroom yokk sa xam-xam di la xamal na rek yëf yi mii nii xam-xam la te li ngeen fete fële ci Daarul Muxti maa ngi doon wax keroog bi ngeen ñu ci invité foofu ci ab jataay di wax ne ñaari commision culturel yi muy bu Daarul Muxti ak mu assasatul ahfaadu sëñ Masamba dañu bëgg incha allah suñu lépp nekk xam-xam muy tabaadul li ñuy wax tabaadul weccoo ndax Daaru Muxti ba ma fa ñëwee daaw jéeg ñu invité ma comme ni ñu teewoon sëñ Ahmadu mii moom mii moo ma invité woon ma fa doon waxtaan benn tomb seet naa fa ñu bëgg xam-xam ñu xam-xam yitteel comme ñi nekk fii ci ëttu sëriñ Masamba bii nga xam ne ñoom it ñu mel noonu ñoo nekk fii ñoom it xam-xam yitteel leen kon nag suñu diggante ñu ñaar ñu ngi ñaan mu gën a dëgër bu baax a baax ñu gën a weccoo ci eh, xam-xam gën a xóotal gëstu yi insha allahu taala loolu ñu ngi koy ñu ngi leen koy wax ñu ngi leen koy gaaral la xam ne commission culturelle bu ma sàmba ak bu Daarul Muxti mu assatul wafa ndax ñoom it wax dëgg yàlla ay mbokk yoo xam ne ci koor gi bi may xool seen programme bokk na ci programme yi gën yi ëpp solo ci wàlla mawduu yi ëpp solo yi yi yi traité ci biir koor gi mu asatul wafa ñoo ko def te it mu asatul wafa ñépp la ñu invité seeni waxtaan ñu fay def ay waxtaan yu am solo kon kon na ngeen jàpp ne mu muassasatu lajna thaqaafiya attaabia li muassasa sëñ Masamba jàppale ne kenn la ci yéen walla ñoo bokk lépp kon daal ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm di ñaan nga nuyu nga nuyul ñu bokk yi muassasatul Wafa yépp di leen sant di leen gërëm dafa am ay laaj yoo xam ne root na fi kii dafay laaj ne mal farq bayna sawmi al awaam wa sawmi al xawaas lan mooy seen wuute lan mooy lan moo wuutale diggante sawmul awaam ak sawmul xawaas eh, jërëjëf sëriñ bi bu dee nag laaj yi xam naa lu ci bari dama koy bàyyi sëñ Moodu rek moom moo ma gën a mën a tontu ay laaj sawmul awaam ak sawmul xawaas ak sawmu xaasatil xaasa loolu daa mel ne imaamul Xasaali yi danaa gis mu di ko mu di ko wax awaam ñoom muy sama classe gii nii seen yitte mooy bàyyi lekk ak bàyyi naan fex ba boo lekk ci bëccëg bi doo naan doo def lu lay dogloo loolu mooy seen yitte dëgg-dëgg waaye xaas alxawaas nag ñoom seen yitte mooy cër yi ci boobu woor fa sawmu an yasuuma kullu udwi ni ko sëñ bi waxee ca masalikul jinaan mooy cër yi ci boomu woor te ñoom buñ xasee woor dootuñu doog ilaa yawmi diin maanaam sa bët bi bu xasee woor ci bàyyi lu xaram saa yu ko gisatee rek dog na moo tax ñoom koor googu du yem ci ramadaan waaye ramadaan ak lu dul ramadaan lay doon bu dee sa nopp bi itam woor ci bañ a diglu lépp lu di lu dul alxuraan ak sunna si yonent bi boo ko xasee koor gooy du amatul dog sa xol noonu say tànk noonu say nopp noonu say sa làmmiñ noonu sa lépp noonu cër yi daal woor ci bàyyi lépp loo xam ne lu xaraam la ak lu yàlla aaye di def lépp loo xam ne lu yàlla digle la loolu loolu lañ tuddee sawmul xawaas ci li ma jàpp am na nag beneen buñ ci tegaat mooy xaasatul xaasa mooy nit yàlla dëgg dëgg nag ñetti xaaj lañ koy xaaj ñooñu moom seen xol mooy woor woor ci dara lu dul yàlla du ci toq loolu nag googu koor moom yombagut màndargay koor guñ nangu de moom li ma ci mën a mooy nit ki su fekkee ne yàlla defal na ko koor gi ca suba maanaam ba mu bàyyee lekk ba ni mu doge muyu fi yàlla te dundal na ko ci xeet yi ñu war a dundale koor yépp loolu jàpp ne koor googu yàlla mën na koo nangu loolu màndarga ci màndarga yàlla nangu koor maanaam bu fekkee bëccëg bi gisu fi lu xaram dégluwoo ko fi waxoo ko fi itam xalaatoo ko fi itam te yaa ngi yendoo di def ay naafila ak di jàng alquran ak di jàng ay xasaayit wala yu di deme walla ngay def ay tudd yàlla lu mën a doon rek ba bëccëg bi yëpp jeex te yendowoo ko nelaw itam ba bëccëg bi jeex defoo itam yi ñuy yàqe waxtu yi di ko gaawale waxtu bi itam nekkoo ca loolu koor gu mel noonu ku ko koor dañu mën a jàpp ne kii mandarga la ci mandargam ne yàlla mën na ko nangu innama yataqabbalu llahu minal minal muhsinin waaw minal muttaqin innama yataqabbalu llahu minal muttaqin inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin boobu laa koy boo bëggoon wax mooy yàlla daal ak nangoom te yërmaandeem ci biir ak nangoom la dugg ña koy am mooy muhsinoon yi mooy ñi nga xam ne rafetal nañ te dund itam ak ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoom la yàlla nangu muy ni may taqabbalu llahu nga minal muttaqin waaw wérdul maaxuus nag li ma ci xam mooy ku koy jël danga koy jële ci kenn sëñ bi bañ ko ko laajee mi ngi ci diwaanu silk al jawahir xam nga laaj nañ ko ko fa yañ fa dañ fa dajale yu bare bari diwaan diwaanu cercle Diouar moom lañ moolaat boole koog maj moom Sëñ Abdou Lahad bi mooy jam bi ñu mool ci ginnaaw si jamono Sëñ Abdou Lahad te sëñ bi jaañ nekkoon daaree kamil mool ko mooy maj moom bu mag be mag boo dee da nga gis fu ñu ko laaj ci mbirum wirde yi lu bare bare bare loola wax na ne jël ko ci lu dul isnu ku ko def yaa ngi def ak jaamu yàlla rek yaa ngi jëfandikoo la yàlla wax ne uzkurullaha dhikran kathiran masalan yaa ngi def jooju ndigal tudd yàlla waaye nag li lii nga xam li mutasawifa yi wax yàlla di leen ko defal ci xeeti leer ak fatxu gu gaaw loolu ñu ngi koy amee ci isnu am ko ci isnu min mazunin boole ci koo xam ne dafa amoon isnu moom it am nañu ci teg ni itam kooke kam kam jëloon isnit am mu amoon ci ndigal man koo joxewaat loolu bu dee tarixe yi des yëpp dañu ko ci boole waaye fii de nga sëñ doo xam ne min mazunin rek léegi nag kon loolu dañ ciy tegtaloo ne wirdu wi boo koy jëfandikoo te jëlewoo ko ci ndigal yaa ngi def ak tudd yàlla rek da ci am yoolub tudd yàlla waaye nag yi ci yàlla dëxañ ci ay xeeti mbir ak yëf loolu jot ca moom isnu bi moo moo moo la loolu la sëñ bi wax si amul bam min mazunin wallahu taala alam eh, laylatul qadr fi kitaabaat Cheikh Khadim am na eh, xasida gu siiw gu ngeen gis du naka yaa man lay laylatal qadri tarum bi nga xam ne day wax bis bu ne maanaam bu ko weer wi tàmbalee laylatul qadr nangam lay doon bu tàmbalee bisub gaawu comme ren ji ñaar fukk ak benn lay doon lëkkasun niyeetun no bayit woowu ngeen gis léegi nag bayit yooyu soxna may moom lay jëfandikoo mooy leetu xadar gi ñu def kër soxna may xam nga moom lañuy ñuy jëfandikoo waaye boo gisee jamono sëñ bi itam sëñ afe ñang mi sëñ afe mel na buso ak sëñ mbakke buso ñi sant buso bu gisee ñoom ñaar fukk ak juróom-ñaar la ñuy màggal leetu xadar ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu rek day tegtal ne kon ñaar yëpp ci sëñ ba la jógee maanaam ginnaaw ñi sant buso ak ñu bari ba ci njaareem fi ne daara waa njaareem ba léegi nii ña ngi koy def ñoom ñaar fukk juróom-ñaari la ñuy la ñuy màggal teewul tënk bi itam am na murid yu ko doon def mel na ne jamono sëñ bi ndax loolu moo moo sabab ci li ma yaakaar soxna may ginnaaw bi mu jël ko dundal ko ba fi ne ne murid yu bari moom lañ def muy ak Laylatul Qadr bayit yooyee nag nga ne ci lañ sukkandiku daa am ñu ne lu mel ne man sama waajur ci Cheikh Mouhamadou Mourtada ci almuridiya dafa jàpp ne sëñ bi defu ko am nañu ci jàpp ne sëñ bee ko def waaye wax jee ko fi jiitu wax ji moom moo ko fi jiitu ndax mi ngi ci xaasiyatu saawi bu tafsiru eh, jalaaleeni boo nee da nga ko ca fekk al mudawwanatul kubra wa adillatuhu itam bu xariyaan eh, yi mudawwanatul kubra boobu boo gisee ca mujj ba mu wax ci koor indi na fa ne ibnul arabi yaakaar naa mu mag ma daana moo indi woon tënk bi maanaam tënk bi lu mën a xaw jiitu na fi sëñ bi bu feeñee bi sàngam nangam lay doon loolu jiitu na fi sëñ bi am na ñu ne nag kon dafay jiitu sëñ bi sëñ bi way ko moo def way am ñu ne way ci boobu defu ko loolu lépp ci biir murid gi da koy gis bu ko defee nag man kay fa nataxaraa tënk bi nag bu am solo la ndax bisu àjjuma rek lay doon te day tool te yonte bi waxoon na ne maanaam maanaam leetul xadar mi ngi ci weer wi benn bis la ci weer wi am na beneen xadis bu ko gën a taxsiis wax ne mi ngi ci fukk yu mujj yi neen ko ci dàkk am yu ne beneen xadis bu gën a taxsiis wax ne neen ko dàkk ci bis yi tool ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak euh, kii imaamu Malik ak ak ñenn ci fuqaha yu bari wax na ni ñaar fukk ak benn ñoom lañ ko gënoon a teg fi ne am na ñu ko jàppe ñaar fukk ak ñett am ñu ko ñaar fukk ñaar fukk juróom-ñaar masalan lépp ci àdduna bi moom la ñuy màggal kon boo ko bëggee dàkk daal dama yaakaar li gën mooy gudd yëpp rek guddi yëpp rek koor gi yëpp nga nga dundal ko man qaama laylatal qadri imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma taaxar te am na feneen foo xam ne man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban loolu daal gàttal gi mooy fexeel dundal guddi yépp koor gi yépp dundal gi yomb na ma jeexale foofu mooy yonte bi wax na ne alayhi salaatu wasalaam boo jullee gee ci mbooloo mel na nga julli nga xaaju guddi gi soo jullee fajar ci mbooloo mel na nga julli taxaw nga julli gée guddi gépp di ko dundal kon fexeel ba guddi guddi weeru koor yëpp na ngay julli gee ci mbooloo di ko julli eh, fajar itam ci mbooloo te naafile yi nga xam ne moom la ñuy def it fukki rakk ak ñaar yi yi nga di ko def te yéene ci xiyaamu leeli te faral di wax li soxna Aysa wa yonte bi waxoon ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wala innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna

mu continuer di xëdd ginnaaw muy sikki sàkk ba xam ndax jotut naag jotut kooku far xëdd loolu de moom xam nga man ñëwuma tontu laaju fiq te sa ñëpp laat nekk bi waaye li ma jàpp mooy moom moom ginnaaw day sikki sàkk rek na def li gën a wóor la njàngoon ca na nafis moom jàpp na ne day sikk sàkk ba muy lekk booba xëdd jotoon na jotul te amatul kenn leen du wóor na jàpp ne booba jotoon na mu fay bis bi waaw fii nag day am ñoo xam ne masalan bu ñu nee jàpp jot na xam nga ñiy wax ne jàpp jot daa mel ne dañuy xaar ba waxtu jot ñu wax ko ñoo xam nag dañuy wax ne jàpp jot na ñu bëgg a ba keroog ñuy nodd loolu nag li gën a wér mooy ku ko def moom faw nga fay bis rek moo gën a wér lekk maanaam loolu dal dog koor la daal maanaam ginnaaw bu ñu nee jàpp jot na rek bu ñu nee jàpp jot na rek bàyyi jot na day am ñoo xam nag dañuy bëgg di wéy di lekk ba bañ nodd lu mel ne fuqaha shafi'iyya moom am na ñuy wax ne nodd gi mooy mooy mooy bàyyi gi dëgg-dëgg waaye daa mel ne yonte bi daana wax ñu jiital ko maanaam lu mat ñeent fukki aay ñu mën ko fee jàng loolu ci muxtasar Cheikh Khalil boo gis di ko ci gis moo tax waa ji daal li ma jàpp mooy moom li gën a wóor mooy mu fay bis ginnaaw mi ngi sikk saaka daal na def li gën a wóor rek wallahu taala alam sëñ Abdou Lahad nag mooy faqih bi man ab euh, murid laa bu kii rek bismillah bismillah bismillah taw tawba tawba de moom mooy tuub xanaa ah tuub lu am solo la te itam lu Sëñ Tuubaa fonkoon la murid wirdul maaxus boobu ñuy wax bokk na ci sartam mooy saxoo tuub ak wéerul ak dellu ci yàlla subhaanahu wa taala loolu bokk na ci sart yi wirdul maaxus ki ko jël faw dafa war a bàyyi kabaayir yi waaye dafa war a sax ci tuub kon taw ba tuub mooy loo xam ne boo ko defee mooy li mën a far ay bakkaar yi nga xam ne moom moom la nit ki jëf xam ngeen bakkaar lu yomb la te moonu tënk nun ñépp li ko mën a dindi nag mooy tuub tuub suñu borom coom da koo digle wa tuubu ilallahi jamian yàlla moo digle ne yéen ñépp na ngeen na ngeen na di tuub ak di delluwaat ci man yàlla dafa wax sax ci alxuraan ne inna yuhibbu tawwabin mooy ñi nga xam ne dañoo def léeg ñu mooy yàlla dem yàlla jéggal leen ñu delluwaat ci ëllëg defaat ko yàlla jéggalaat leen ñu delluwaat ko ñoo ñu dem gi ñuy dem ak a delsi di jéggaloo ko jéggaluwaat yàlla da leen di bëgg ngir loolu yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin yonente bi wax na ci xadisu qudsi ne bu fekkoon ni njul nit ñi dañoo maase kenn du def ak mooy yàlla yàlla da leen fi jële ñoom ñépp indi fi ñoo xam ne dañuy mooy di jéggalu yàlla di leen jéggal kon tuub solo soosu la am mooy far bàkkaar yi te itam saa yoo toogee jéggulu yàlla yàlla da ciy bëgg su yonente bi wax na ni lallaahu afraxu maanaam sunu boroom mooy gën a bëgg ci saa yu jaam bi ñëwee toogee saa yu jaam bi bu ñëwee toogee fi kanam di ko jéggulu yàlla dana ci bëgg mbëgg moo xam ni mooy raw waa ji nga xam ne dafa doon tukki ca digg manding ma yor lekkam ak naanam def ko ci giléem wàcc di faj aajo rek giléem nga dem mu wër wër wër wër wër gisul giléem gi wër wër wër ba naagu jàpp ne daal moom moom day faatu mu tëdd fi bërëb ne naa toog fii nii bu ma faatoo mu nekk sama barab bi mu tëddee rek di xaar de ne xinat yem ci giléem gi ak lekk naan gi waa ji bégg a bégg ba ne sunu borom yow sama jaam bi man sa man sa borom maa ngi lay sant maanaam mbégte moom mu bég yonente bi di wax ne yàllaa koy gën a bég yàllaa koy gën a bég saa yoo ñëwee toog ne ko jéggal ma kon tuub ak jéggalu yàlla day lu yàlla fonk boo gisee Sëriñ Tuubaa bi def na ci xasida yu bare bare bare bare weeru koor nag weeru njéggal la moom fi ne guddi gune juróom yonent bi wax na ci xadis ne juróom benn téeméeri nit yàlla na leen goreel ci guddi gune ci ci weeru koor yàlla yàlla defal nu bokk ci ñi ñi jéggal suñu bàkkaar yépp بصراحة الحادث الموجود حادث أصله سنته في ليلة السنة العصر وأربعة كيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ الصوم جنة مع كيف كان كيف كان الصوم جنة آه. maanaam koor koor nan la nekkee pakk loolu day ba tey dama koy bokk ci yi nga xam ne moo koy dajaleel sëñ sama sëriñ bi Cheikh Abdoul Ahad mu tontu ci li ma ci mën a wax rek mooy koor pakk la pakk xam nga mooy mooy défense boo xam ni dalay fegal ya nga xam ne mooy jóge ca feneen di agsi ci sa kaw yooyu lay fekk ñi nga xam ne ñoo daa xare xam nga dañu yor lu ñu wax pakk boo xam ni ci la ñuy défensoo euh, jees yi nga xam ne moom lañ leen di caw koor nag mën a laa fegal yu baree bari ndax seytaane ci boppam mi gën a mën a lor doomu aadama nga xam ne yàlla ci moom wax na ne mooy seenub noon na ko jàppeem noonu moom kese mooy noonu doomu aadama seytaane moomu biir koor dañ koy jëng fegal la ko du la mën a lor loolu yaakaar na ne benn la ci yi nga xam ne mës na ko cee déggee nga xam ne du agsi ci yow koor itam boo ko defee koor mooy jaamu yàlla goo xam ne amul ngistal te gis nga nit ñi sax fi ne bu fekkee nit ki bu fekkee dafa woor ba ngoor jot yu bari ci mooy yàlla du ko tal du tara wax lu bon du tara def yenn jataay yi nga xam ne amul solo yi nga xam ne amul solo du ko tal diglu ndax kàttam kàttanam mooy néew lu bari bari ci ak mooy yàlla ak ci yàq ak sikk yi du ko jege da koy moytu yooyu it ko cee déggee damay kan xeeti maxaani yooyu lañ ko bëgg a waxe waaye mën na am mu am yeneen maxaani yu ma teewluwut waaw hmm. waaw dina gisee ba sawam junne maanaam pàcc la ci su fekkee nit ki dafa wóor pàcc la ci diggante ba seytaan ndax seytaan dafay yàq doomu aadama te it su weeru ko jëlee suñu borom subhanahu wa taala dafay wala dafay tënk wala mu daal di ko woon boo ko pàcc fàkk leen ci bànneex bànneexu bakkan. ndax nit ki bakkan daf koy doon waaye su boobaa rek boobaa la ngay daal di nekk pàkk ci moom bànneex la wala bakkan la bëggoon du foofu kon kooku tey mën nañu ne jur na saw jur na kon ñaar yooyu daal si daal si kon mbokk yi dafa la nuyu taxawal fii di sant baax seen leeral yi ci baal yi sant bopp yi toloo yëpp nga xam ne lii mooy jotaay bi jotaay bii ñu fi ñëw ay fataal yee incha allah taala si barka am na ci ay aspect yu bëri bëri kon ñu sant ñëpp gërëm ñëpp leen jox dara incha allah ci ay fi ñu ñëw yàlla si borom yóbbu jàmm nga xam ne nag na weeru koor ko ñu àggoo sita michoro kikapo onekisikapo kutanda pepurwa musokuyoba jirorukon liyore kusirifawo kusirimahangalimu sanekalo efaminya nyakokimu alisir وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci jataay bii nu amaat di ko dundale koor gi waaye di ko dund ci lislaam waaye di ko dund it ci xam-xam mu doon loo xam ne lii lu yitteeloon sëriñ Tuubaa la doon it lu yitteeloon ñim àndoon ak moom ñëpp lañ rawatina ma Massamba mii nga xam ne ci keppaaram lañ koy defee ak këram ndax ku ne xam na ne xam-xam yu bari juddoo na juddoo na tey yoo xam ne yi bu ku ko bëggoon a jàng da def ay at yu bari da gëstu lu bari lépp nga teewal ko ci benn jataay kenn ku nekk mën caa tànk dem yóbbu jariñoo ko loolu moom lu am solo loo xam ne lii mel ni njàng féetewu ko kaw te ku ne xam ne ne laaj ñu tontu la lu lu yomb lu jafe-jafe la ab gëstu lay laaj bu baax a baax a baax ginnaaw bi nga amee xam-xam kon yàlla yàlla dolli sa xam-xam te barkeel ko ñoo ngi sant yi mbooloo mi fi teew ñépp te ñépp bëgg a jariñu rek moo leen fi indi ndax